présidentielle alors ñu des fii ci tribunal bi euh, Awa Diop Ndiaye tribunal grande instance de Dakar euh, tey ji instant yi ñuy wax sax euh, yaakaar naa procès bi mi ngi en cours ci diggante état bi Sénégal ak Ousmane Sonko wala sax agent judiciaire de l' état ak Ousmane Sonko li ko waral nag mooy Ousmane Sonko dafa demande réintégration ci liste électorale Famata li ma la waxoon démb defe naa ne du ma ci bouger yotaa procès bi tey jii soo xoolee engouement amu ko ñi nga xamant ne ñoo Ousmane Sonko ses sympathisants waa paste déggoo kenn koo xamante ne tey jii am na benn portée bu mu jox li nga xamante ne moo di portée bi euh, procès bi ces avocats nag tey jii euh, ils sont dans leur mun nañ leen concéder à chaque fois ñuy user li leen yoon may pour ñu layal ki nga xamante ne moom moo di seen client mais tey ñun askanu Sénégal wala ñi nga xamante ne également ay jege ñaare Ousmane Sonko am nañu sañ-sañu toog ne. on n'attend rien de ce procès là gannaaw ba nga xam ne démb dama la defal jeunesse bi wax la lan moo indi lii ba fi ñu agsi tey jii. Mhm. kon tey lan la ñuy xaarati suñu demee ba nga xamante ne ñoom amatuñu benn wekk wala amatuñu benn euh, xel bu rafet ci li ni mel nee naa leen lii am kañ moo di ne ñu ne Ousmane Sonko ak xam ak yelleefam delloo nañ ko ko. cest a dire ses droits civiques delloo nañ ko ko. loolu mooy doon mbetteel tey jii ci askanub Sénégal mais leneen lu fa tukkee pamata mhm. du doon li nga xamante ne moom boo di mbetteel parce que gymnastique judiciaire bi nga xamante ne tàmmal nañ ñu ko mhm. gis nañ ko boobu ba léegi rawatina si dossier ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko mosagoo gis fu ñu ko joxee gain de cause wala fu ñu ko joxee gain de cause ñu jàpp ne juge ba ko jox gain de cause mhm. ah kooku am na lu nekk ci mm-hmm. suuf il appartient à Pastef ba nga xamante ne daf leen di jaxal ñu koy yónnee ay igage ak yi ni mel mm-hmm. donc tey jii en retour bu fekkee ne yeneen juge dañu joxe boo xamante ne des verdicts en sa défaveur et pourtant ñooñu duñu jàpp ne peut-être que de beneen parti lañ bokk dañu naan non non ñii nag ñoo wax yoon. Mm-hmm. kon tey jii. ak lu ci munti jógee. ñun euh, man bokk de mon côté je n'attends absolument rien de de ce procès là tey nag li may wax avocat yi nag duñ leen ci ŋaañ duñ leen ci wax dara. ñoom ils sont dans leur rôle ils travaillent pour la justice et tey jii seen client la ñuy layal dinañuy dem jusqu'au bout lu leen yoon may dinañ fa teg seen tànk et mettre l'opinion nationale et internationale devant les faits qui se déroulent au Sénégal tey jii yaakaar naa ne depuis un certain temps mhm. les yeux sont rivés si li nga xamante ne moom moo di Sénégal maintenant nag quelle lecture en tirer et quelle note donner au Sénégal par rapport à la justice pa mhm. rapport à la les gens sont là pour juger. Mame Birame euh, dañuy naan euh, souvent procès dafay am enjeu euh, bi procès est-ce que enjeu bi mi ngi ci ba tey est-ce que tey jii ñu bëri ñu ngi xaar dara loo xamante ni li jógee ci procès boobu mu soppi en tout cas li nga xamante ni mooy destin wu benn nit wala sax benn mbir boo xamante ni war na ko mën a changer. waaw c'est une <coughs> pardon c'est une bonne question parce que soo seetloo Pape Matar. procès bi daw euh, ci suba ba léegi euh, dafa mel ni rek comme si benn répétition générale la par rapport ak li amoon la dernière fois à Ziguinchor. Mhm. que avocats yi pratiquement même terme yi la ñu utiliser même plaidoirie bi euh, nga jàpp ne rek quelque part comme bu doon match de football da ngay jàpp ne dañ ko footballee woon Ziguinchor tey ñu ne dañuy déplacer match bi. parce que la woon retour bi Dakar. ma ngoog doo wax sax aller retour parce que boo nee aller retour day mel ne score um bële day compter alors que ñoom dañu ne score boobu compteetul nee nañ puisque match bi Ziguinchor lañ ko fubalee te foofu da ngeen faa bëri supporter léegi dañuy indi match bi Dakar bi nga xamante ne ni daanaka kenn xamu leen fi pour schématiser un peu. léegi nag euh, euh, euh, enjeu bi nga laaj mooy que liñ ci mën a wax rek mooy. quel que soit l'issue de du du du procès dañuy mettre toujours le 26 décembre comme ligne de mire maanaam à partir du 26 décembre kenn mënatu la dépo au-delà du 26 décembre kenn mënatu la déposer euh, candidature pour l'élection présidentielle parce que procès muy bii muy bi fi euh, am bële passé ca Cour suprême muy bi jàll fële ca Ziguinchor lépp lépp lépp lépp lépp mu ngi tënku ci Ousmane Sonko dina nekk candidat wala du nekk candidat léegi bu nekkee ne dernier délai pour <coughs> déposer euh, comment dire candidature c'est le 26 décembre prochain da ngay xool tey ñu ne la c'est le douze décembre ñaari parti ku ci munti am dëgg. Pamata. maanaam tribunal bi. ñu jugé ne Ousmane Sonko moo am dëgg euh, nañ ko intégré waat ci liste yi. wala tribunal bi mu ne agent judiciaire kat de lu mu wax mooy noonu Ousmane Sonko waratul nekk ci liste képp ku ñu mun a trancher à ta faveur keneen ki day dem defiwaat appel mm-hmm. Mm-hmm. maanaam cour suprême bi jël dossier bi buuxaate ko ca moom lay mujjeewaat bu ñu joxee dëgg état bi waa Ousmane Sonko dem déposer recours. Mm-hmm. bu ñu joxee euh, euh, Ousmane sonk dëgg agent judiciaire de l' dem jox euh, dem def recours. léegi est ce que tey le 12 fi ak le 26 mun nañu fi defaat beneen procès boo xamante ne nii dina permettre cour suprême contrairement ak la première fois bi nga xamante ni nanguwuloon a tranché mu dal di tranché de sorte que Ousmane Sonko am possibilité dem déposé ji sa candidature. Mhm. la réponse est non moo tax simulacre de procès la. awa mu ngi koy wax sànq les avocats ñoom ils sont dans leur rôle. Mhm. dañuy dem jusqu'au bout. mais soo seetloo engouement bi nga xamante ne nii sénégalais daal nañ ko am ci yeneen procès yi. te bii amuñu ko si. c'est parce que ils ont compris que. Mhm. jeu de dilatoire la dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a gagner du temps. Mhm. parce que le 12 ak le 26 ci diggante bi 14 jours la rek. te gisuñu fi benn yoon boo xamante ne nii justice accéléré na le pour permettre à quelque boo xamante ni d'accordul ak le pouvoir. Euh, mu mu mu mu mu dem ci yoon. Mhm. donc euh, mooy loolu. Mhm. Mhm. Georges Nesta est-ce que bu ñu demee ba ci réew euh, justice bi nga xamante ni moom nañuy wax mooy dernier rempart di war a génne benn décision war a àtte justice boobu ñu bëri nii àtte bi muy def deew ñu bari amuñu si yaakaar wala xaaruñu si dara est-ce que bu ñu demee bay dund yooyu la situation quand même wu ñu yenn mbir yi nga xamante ni ay limites la. non je crois que c'est pas parce que nit ñi sax dañoo dañoo ne bon euh, xaaratuñu si justice bi mais procès bi ni mu bindoo moo tax sénégalais yu bëri ak commencer par ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko am ñu si benn yaakaar. Mhm. ku si jàpp tey benn boo laajtoon sénégalais tey di def si sondage nga ne leen tey lan ngeen ban verdict ngeen di xaar pour euh, dans ce procès la ñëpp da leen naan ça les intéresse même pas. Sénégalais seen bopp le procès ne les intéresse plus parce que tout le monde sait d'avance ce qui ce qui sera euh, ce que le tribunal ce soir loolu moom leer na je crois que même les avocats de Ousmane Sonko mi nga xam ne dañ koy ñu ngi ñu ngi plaider boobu suba ba léegi ñoom ils le font rek par principe quoi ce procès là c'est c'est c'est juste devenu un truc quoi nu mu sax ça a déjà été fixé Euh, mënatuñ ko bàyyi mënatuñ ko fomm mënatuñ ko reporter ñu ne ben voilà on respecte les les les les les trucs les vices de forme et de et de procédure mais tout en sachant que Ousmane a commencé aussi par Ousmane Sonko il s'attend plus rien à ce procès là euh, maam Biram mu ngi koy wax léegi même à supposer que procès bi se déroule normalement que la loi que le droit soit di et tout et que Ousmane Sonko am dëgg. Mhm. mais le, le procès bi si boppam la finalité c'est quoi c'est la réintégration de Ousmane Sonko sur liste électorale te liste électorale yooyu procès électoral yooyu fu mu nekk nii euh, dafa toll foo xam ne même boo réintégrer Ousmane Sonko tey tey on est le 12 démb ne démb la ñu pare affaire parrainage yi yow léegi boo ko réintégré tey kañ lay dem jëli sa fiche par exemple je, je, je juste une hypothèse hein ñu ne ko yow tu as raison dañ lay réintégré waat réintégration boobu xam nga du du xëy rek ñu réintégré ko il va falloir que mu dem peut-être au niveau de euh, de la direction générale des élections et tout un truc là. mu def la voilà que la soit disponible d'abord. parce que la direction des élections lay naan toujours man j'attends qu'on me donne le signal. te signal boobu fu muy jógee mooy que ministère de la justice parce que ministère de la justice moo joxoon ndigal ministre de l'intérieur ne ko dindi leen ko si liste yi donc il va falloir recommencer tout que d'abord le jugement soit disponible parce qu'il va falloir que le jugement soit disponible maanaam atte ko tey le jugement <laughs> juge bi ko war a bind il peut prendre tout son temps peut-être que le greffier peut prendre tout son temps nekk voilà ça peut même prendre une semaine hmm. pour que le jugement soit disponible voilà et tant jugement boobu disponible lul mhm. mën a xalaat qu'il soit intégré donc c'est pas automatique que ça mhm. donc pendant tout yow kooku ba kañ ngay mën a xalaat mu mën a remplir tout ces formalités la ba dem DGE aussi va prendre tout cent temps ba mu mën ko délivrer une fiche de parrainage ba pour e avoir ses parrains les parrains moom amul problème parce qu'il a 14 députés. te boobu moytuwul DG e, ne la l'État a l'intention de. <laughs> voilà man sax et puis et puis man j'évoque pas encore euh, cette hypothèse là. xam nga hypothèse boobu mooy lan mooy ñu dem ba par exemple nekk voilà Ousmane Sonko gagné na tey. Mhm. agent judiciaire de l'État ak nu mu déterminer sa affaire bi. Mhm. xam nga du ko bàyyi la woon mu yomb. il va interjeter encore appel. appel boobu euh, bon ça peut même aller nga xam ne moom la ñu fixé pour euh, euh déposer parrainage yi ba pare tey <laughs> la finalité du procès là finalement yow da daf may jàppale sax parce que je me dis que tey bu ñu encore une fois bu ñu nee Ousmane Sonko a obtenu gain de cause mandataire bu nga xam ne moo war a dem jëli les de parrainage. Mhm. wala la la la clé USB et tout cela. mais moom <laughs> fu mu nekk nii euh, kañ lay dem ba ñu mën ko jox euh, nu mu tax sax ba ñu bu mu bokk ci tirage au sort bi parce que pour nga déposer. pour ñu mën a xam nu mu sax ah. pour tous les candidats ordre de passage bi. voilà ordre de passage bi xam ne boobu la war a def fële ci conseil seen dossiers yi. dafa war a am mm. ordre de passage. donc koo xam ne bu ñu tiiree ordre de passage ba pare. Mm-hmm. kooku nag léegi bu ñëwee une semaine après. Mm-hmm. waaw léegi ban ordre de passage mooy dem ndaare wala moom dañ koy jox euh, euh, parce que y' a pas un un un chiffre devant devant le le le le wala mu nekk wala mu nekk zéro ah déet moo tax mais moom bu fekkee ne dafa jël. waaw euh, les les députés waaw les euh, députés waaw waaw. oui oui bon là même pas ce problème là. voilà il y aura là là, les les les députés il n'y pas de problème pour ordre de passage. mais quoi qu'il en loolu même hors de passage boobu ça pose ça ça c'est un autre problème boo xam ne sa peut euh, mën na gàllankoor son son sa candidature mm-hmm. donc je ne vois en rien comment maintenant Ousmane Sonko procès bi mën a am ba ñu nekk woy tu es réintégré dans les listes et que ta candidature pour la présidentielle 2024 est est validée mais Pamata oui oui xam nga wax ji mooy lan soo gisee déjà ñi ngi wax ne procès bi amatul engouement mm. parce tey